ma waxoon léegi rek ak yaram moo tax maam Mor ku baax la kon nag si Abdou kàddu gàngu alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi alxaatimi naasiri alxaadi ihdina ila siraatika almustaqim siraat allazina an'amta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaa wa saalihin wa asuna ulaika rafiha zalika fadlu min allah wa kaana laa aliman hakim ana alfadla bi yadi llah yuuti man yasha wallahu dul fadl azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mu mel ni bi bu ñëw kër sëriñam soppe bu ñëw kër soppem sëriñ Abdul Aziz Samb ñëw kër Chérif Ibrahim Muntaxa Tijaani comme ni mu ko waxee alhamdulilah rabbil alamin quatre vingt dix la ñu xamante ci rawdu maamam Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñu téyante loxo nii ci rawdu bi mu ne ma juddoo nañ senegaal ba toll nii ñu toll xamante wuñ yàlla boole ñu ci kanamu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane xame bii de dinañ ko sàmm ba ci kanamam insha allahu rabbi foog naa ne diggante bi mu ngi bëgg a yàgg te heure bu ñu gisantee mu gën a bees gën a rafet gën a neex alhamdulilah parce que Chérif nii la mel du soppeeku yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko yal na yàlla yeggale mbébétam ak mission ci tal ak dal jaam yàlla yépp fekke ko ni mu wax xolam bi effectivement loolu moo ci nekk il a un cœur d'or du tricher ni mu mel nii la mel ki xamoon shérif y a de cela 40 ans y a de cela 20 ans 10 ans il reste le même shérif et il sera toujours ainsi noonu la yàlla def te damay wax léegi suma sëriñ ci yoon wi ma ne ko man ku réew moo ma gënal ku dof parce que loolu attitude rek la mais dof moom yàlla nañ ci yàlla musal bu nekkee sa soppe nag nga gën a am problème parce que fu mu jaar rek raja xel la boo ñëwee ñu ne sa waa ji jaar na fi da tiit parce que xam nga ne yëfi dof rek la fa def moom nag yàlla subhanahu wa taala suturaal na ko ba il est intègre macha allah xam na nu muy jëflante ak nitam ku fi ñëw rek tu as envie de revenir parce que tu trouves un shérif entier s'il te plaît il est ainsi s'il te déplaît Allah a fait qu'il soit ainsi ni la shérif mel ñun nag alhamdulilah rabbil alamin bi nga xam ne neex nañu. su ma suma sëriñ Maulana Seydi Hadj Malick Ibn Hadj Abdul Aziz heure bu ma joxee loxo dafa ma wax ne bu ma la gisee rek sama xel nekk ci shérif ndax mbaaxam moo ma jox salaatul fatih mais shérif moo ma defal ijaaza ci tarixa Cheikh na Tijani bu ma sañee joxe tarixa bi moom moo ma jox ndigal loolu alhamdulillah ba sama séjour bu mujj bi j'ai fait un mois ci rawdu Seydina Cheikh Ahmed Tijani Sidi Joubert Tijani renouveler defal ma ijaaza ci tarixa bi mais képp koo xam ne jox naa la salaatul faatiha fi mu ne ci ndigalu shérif Ibrahima Aïdara laa la ko joxe loolu nag mooy kóllëre loolu la yàlla bëgg tey nag ma ànd ak suma njaboot mais suma sëriñ sëriñ Mamour Sy di sët ci Maulana Seydi Hadj Malick radiallahu taala su sëriñ mu nekk comme ni ko shérif waxee ku baax ku yiw ku am xam-xam ku bëgg Chérif Ibrahim Aïdara daf ko bëgg ba dama ko doon wax ne grand yow da ngay triser Chérif waaye booy wax sax ñu foog ne Chérif mooy wax booy solo nga ngay jéem a simple simple comme Chérif nii comme sax mu ne ma Chérif maa ko bëggal suma bopp loolu lu ci nit man maa ko bëgg ma boo fay dem te yóbbuwuma duma la ko baal moo tax démb laa leen woo na leen incha allahu rabbi dañuy xadara ji kër Chérif Ibrahim Aïdara Euh, sa xarit Serigne Mouhamad Mansour Ka surtout Seyd Hadj Malick moom it pare woon na pour ñëw am ko malaat moo tere mu ñëw maam euh, Mor Samb El Hadj maam Mor moom tamit mbëggeel boobu la la ëmbal dafa may wax ne boo demee ci shérif te yóbboo ma nijaay foo taseeg man rek xamal ne jote nañ di wax ci yow mbaax di wax ci yow yiw tant boo xam ne nekkoo fa fekkewoo ko mu jël temps yépp waxtaan ko ci shérif Ibrahim Aïdara loolu kenn mënu ko fay te ñoom xam nañ fi ñu may jàpp xam nañ ne man ku ma wax bëgg nga Chérif rek bëgg naa la mas nañu am suñu benn soppee mu ne ma sëriñ Abdou yow da nga da nga da féete boor mu ne leen waaw féete boor mooy dama ànd ak dëgg rek parce que Chérif ku baax la wax naa ne ku baax la wàññiwul dara diw baax na te mu baax bu doon j'étais le seul à le dire au moins amul sens mais àdduna bépp na nañ ku baax la wallaahi wallaahi ku baax la ànd ak sa doom Seydina Mohamed moom aussi mu ngi jóge fees ci raw dinaa Seydina Cheikh def na fa deux mois fekk woon fa rakkam Mouhamadul Amin moom it def na fa un mois ñoom duñ ma tàggu dafay ñëw ma ne ko yow yaa jiite jumaa ji vendredi prochain ndekete defar na biyam ba teg mu ñëw ne ma dama ñaanoon ci barke Cheikh Omar Foutiyou de dama bëgg a ziyaare Seydina Cheikh ma ne ko coup d'état la mais nag garaawul nañ ut ko jiite jumaa ji man mënuma <laughs> yéen yéen a fi nekk te da ngeen may toppalee fi mu ne buñ ne Lamine dem na buñ retourné na euh, Seydina Mouhamed dem na te loolu yépp ci seen mbaax ak say ñaan da ñëw kër ga jàpp di leen duma mus naa jënd benn R25 bu bees pul xale yi dugg si biir toj parabrise bi. waaw shérif ñëw yor yatam ne tey laa leen yéen da ngeen xam seen baay nu mu def ba jënd oto bi. duma leen ba maar day taali waaw mus na fekk Lamine mu ñëw jël paaka ubbi néeg néeg yaayam mu ne ko yaay ubbi sa néeg yaay ak paaka te man kenn du laal sama doom nag. <laughs> loolu mooy sama sëg mu jàpp dóor a dóor mën a leen seen papa ñaan leen ko rek ngan ngi jeex ba mu ñibbi parce que bu ma sànni rek ci Dakar rek sama kër la nekk bu ñëwee dóor sama doom yi ba kenn du wax <laughs> alhamdulilah rabbil alamin loolu lu yàgg la lu civilisé la lu rafet la di ko ko seedeel tamit wane bis bi may def ca euh, sali moom yàgg na ko défendre ba dara xewul bañ nee jumaa ji tubaab yeeg ñëpp a daje porté ma plainte dem ba consulat de France def pétition ñi dëkk sali tubaab yépp na jumaa ji du fi am moom moo ñëw taxaw ne par force daf fi am def un discours vraiment légendaire avec un français extraordinaire man xamuma sax sori fa mu dégg yooyu français <laughs> waaye ay saagaa ci ëppoon daal xam naa ne <laughs> alors alhamdulilah rabbil alamin ma leen di wax ne yëkkati diine ci sali Portugal ci biir yi tubaab ak ni nga xamee ne noonu la ñu contre islam nga mën ci am ndam am nga ñu la jàppale kon ce soutien là mais extraordinaire dëgg-dëgg yàlla te ñun njabootu mag ñi lañ tarixa lañ gëm euh, sunna lañ gëm euh, soufisme lañu gëm mën nañu dëkk ku ne mm-hmm. Seydi Hadji ku nekk xam na ne li mu liggéey ci senegal mm-hmm. samp samp zawaayaam yi ci ci kanamu église yi te xeexul xuloowul dëgg-dëgg yàlla ñun mën nañoo liggéeyal islam te du am benn violence te sa ce que nous de réussir su ma sa doom takk na jabar une francaise tuubal na ko tudde ko su ma Sumaya keroog daj ajuma passé wallaay day def wasifa day ñëw ci xadra bi comme nii yëguñu lu dul muy jooy bay ikkat jël na tarixa bi tiijaan la. yow de ah, waaw dëgg dëgg yàlla lii liggéeyal yàlla la te amul xulóowuñu xeexuñu xëccewuñu wala leen takk leen tubaab bi dugal leen ci lislaam yokk xeetu yonte yàlla Muhammad sallallahu wallaay wallaay wallaay kon Chérif sa njaboot a ngi waaw la nga fa sampoon daal ma ngay dund yàlla nga ñuy defal sutura xadra baa ngay dox ñaan bañ doon def ren ñu jàpp ko xam nga toujours premier vendredi du mois de mai. Mhm. tey day tase premier mai. Mhm. mu nekk fête boo xam ne aussi ñëpp a ko bokk. Euh, Mbour yëpp indi naa seen ziar Saly yëpp indi naa seen ziar monsieur le maire mhm. Ousmane Gueye sa soppe la. wax na la ko def na ko la ko diggoon ci man. mu ngi koy def. Euh, internat ba ma tabax. semaine dernière la envoyé camion table banc ñun ba table banc yi sax dafa ëpp ba ñu wàcce ko ci suuf. te camion table ban ne maa leen ko dimbalee ci internat bi tey ci suba la doon inauguré benn commissariat bu bees maa nekkoon presque invité d'honneur ba alhamdulilah rabbil alamin sama cër jox na ma ko respecté na ma xam na maay kan sa bàyyi sa xarit Baye Daouda kamara wax nañu lu ne ci yow ñaan na li mu xam lépp barki démb fa laa toog euh, Mouhamad Mansour Gueye dama ko oo jox ko ko fekk muy bisu miraasu baayam mu ne ko sa xarit la ñuy miraas mhm. sa doom a ngi nii wéttali ko jàppale ko mu ngi ànd ak shérif yàlla bu cat dugg seen diggante li nga wax rek nit ñi duñu bàyyi ñu ànd mhm. te shérif nag defar na ku ne defal na ku nekk lu ne waaye moom nag li ma dala ko dal ah, alhamdulilah rabbil alamin jarul wax waaye nag góor góorlul ci sa ba sa papa shérif mhm. jàpp na la bàyyi na la xel góorgóorlul bul déglu bul gis bul xool yal yàlla musal ñu ci cat musal ñu ci seytaane bi jaay jaayi seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam donc sa bàyyee nga lay nuyu mu ngi lay bàyyi xel mu ngi lay ñaanal nee na bu ko ko may wér gi mayoon fu ma jóge ne ci yow laa jëm si maag moom a ciy ànd def na ko ba tàyyi waaye wér gi moo ko ko mayatul mais nee na nga bàyyi ko xel mu ngi lay bàyyi xel di yaakaar ci yow ñaan dafa am benn jàmm yàlla bu ñëw ci Baye Daouda Camara da ko dama am benn gént bu ma jaaxal mu ne ko dama gis shérif benn cër bu ñu ko attribué ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kii sëtu yonent bi la gént gi duma ci dugg dafa baati ne ba mu ëpp mu nettali ko Baye Daouda mu ne ko wax ko Serigne Abdoul Aziz Samb lu dugg ci noppam mën na dugg ci nopp shérif mu woo ma te moom sëtu Seydi Hadj Malick la muy sa mag El Hadj Malick Niang mm-hmm. sëtu Seydi Hadj Malick mu may dégg mm-hmm. mu ñëw wax ma ko ma ne ko incha allahu rabbi bu ma jàppee ba pare nii dinaa ko wax shérif yéen ku ne xam na ne shérif ni mu difficile téléphone mais nan laa mën a jëlee responsabilité ak engagement bu ma jàppee ba pare dinaa ko wax shérif fi ma jàpp ba pare ma def taw tawsul ci yonte al muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ne shérif dinaa ko woo dina ma dégg dinaa ko wax gént gi may jël suma téléphone composé di xool shérif dama am liste shérif shérif nag may xool shérif jékki-jékki sama téléphone sonné ba gis numéro privé woowaguma ko de yéen ñi xam téléphone maa ngi xool ci CH sama téléphone sone ah ma décroché avant muy wax ma ne ko man jaaxaloo <laughs> ma mu ne nga la ma ne ko man jaaxaloo ma man xam naa sa digganteeg yonte Yàlla Muhammad xam naa sama digganteeg yow mais li ma neex ci biir wax bi mooy li ma dimbali ba fenu ma li ma wax jaamu yàlla bi surtout Seydi Hadj Malick bu ma jàppee ba pare dinaa woo ay dara Aïdara nettali ko sa gént gi te teguma ko lu dul ci mahabba ak tawasul ma ne ko nga dëggalal ma loolu ay Aïdara jërëjëf mu ne ma dama la namoon rek la ne ko jarul commentaire <laughs> non comment nañ sant yàlla kon alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàgg waaw yàlla na yàlla yokk ndimbal sa sëriñ sëriñ kan imaam kan yóbbante na ma ci yow bu ñu jógee naa la wax yóbbante bi loolu daal moom laa doon sëriñ Mamour si mm-hmm. moom baayam baay alaaji si mm-hmm. bi doon wéetali Hajj Abdul Aziz ca jagsaaw mm-hmm. dama dem jagsaaw di sob sob lu ne damay dugg xalwa ci jàkka góor gi ma ñëw gis ko ma ne ko ah, man de dama am fan yu ma bëgg a fii kurus te boobu kat maa ngi def sama affaire u sàmben jënd sama biscuit jënd sama mburu jënd sama nanga mun na ma waaw d'accord daal di may dalal fee yëguma lu dul góor gi reyal ma xar def njaru soow def ataaya boo xam ne dama waaw nii la boo paree ñu defaral la néeg bi te nga ñëw ma ubbil la nga dugg xalwa mais xalwa bu neex Chérif lu nekk laa fa ñaan <laughs> alhamdulilah moom mooy wéy juram alhamdulilah moom muy muy ku baax Sëriñ Maamu ku bëgg xam-xam ku fonk xam-xam ànd ak doomu ndeyam nag El Hadj Maam di rakk Cheikh Samb bi ngeen doon dégg te fu Cheikh Samb daan taxaw di tagg yonte Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom lañ fay woo fekk na ko ak mbiru boppam ak mbooloo boppam mais bu boole ko la ko magam bàyyi nekk taalibe sëñ Babacar Si boo xam ne saanam gi ren dañu def lu tout pour Chérif ñëw ci mais ma ne ko Chérif son programme est tellement surchargé que lu ñu improviser nii du neex ñu indi ko ci mais nañ fexe ba bu beneen yoonee buy am Chérif teel ko yëg boole ko ci programme am ñëw di ko fekkee ba su sëriñ Mamour bi tamit mm-hmm. ñu teel ko programmé ah. nga ñëw di si jël sa cër parce que boo ñëwee yaay di nga taaral place bi te soxla nañu la fa mm-hmm. li ngay li nekk ay xol yu la bëgg ci mbuur kenn xamu na mu toll kenn xamu ko sama bàyyi Thierno Bachir maa ngi lay yónnee nuyoo ci moom mm-hmm. su ma soppee su ma bàyyi su ma xarit su ma wëllëre daan na toog ba di xaaj mu ne ma jëlal oto nga ñëw ñu ànd doxi sàngam soxla sàngam sàngam daana wax ne yaa mujje ñëw ci man mais yaa ma gënal ci ñëpp alhamdulilah rabbil alamin te maa ngi koy ñaanal ci barke maamam Mawlana Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu yàlla na sut mag ñi ay aw fan yàlla na gudd fan lool yéeneem ci mbindaafoon yi ku nekk xam na ko taal yàlla na ko yàlla dimbali mu dund dund ba sut Ceerno Seydou Nourou aw fan bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Maam nga ubbil sëriñ bi mu ñaanal mbooloo mi ñu barkeeloo ko jëmmam ji xam ne Seydi Hadj Malick moo teew ku ko déglu Seydi Hadj Malick nga déglu ku ko tàllal loxo mu ñaanal la Seydi Hadj Malick moo tàllal nga ko tàllal yal na yàlla faj aajo yépp bi hormat Seydil Wujuudi wa alamil shuhuud Seydina wa Mawlana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah lu ma yàgg bëgg la te sama ngi jaay Abdoul Aziz Samb bii da si doy seede sëkk ndax cofe la goo xamante ni mi ngi bëgg a dem sax quinze ans defe na wala waaw mat ëpp ëpp na ko am ni bu masaane ñëw booba ñu gën a nekk sax tuuti ndaw bu bu sëñ maa mën a ko wax naa ma est-ce ñëwagul mën na ko ñëwagul ni moom buntam otom otom nañu xaar mu agsi bu agsee ñu topp si otom bu duggee ñu dugg toog waxee ba pare bu génnee ñu ànd génn dem loolu yàgg na dana bëgg suukar li nga tax a dee soo saaku suukar bëgg rek moo ko yëbbi te li ñuy wax nii ñu ngi koy seedeel yàlla ak yonti yàlla Muhammad ak maam Cheikh na Ahmed Tidiane Serif Fatick Serif ñu ngi lay nuyu bu baax man sama njaay mosuma defal lu dàq li ma defal tey moom nag sama xarit moom amul dàkkantal lu dul soppee yonti yàlla Muhammad Abdoulaye Samb sopp na bi te lool li may wax nii booba xale bu ndaw laa jàng yu mas a dem otoom dañ koy dawal ak dàll ak def sa dàll ya fekk ko këram yëbbul ko yëbbul ko jàng euh, otoom bari na kuy daanu yaa ngi ñuy daanu ñu bari bu ñu ñibbi dañu xool seen oto ñu ku daanu xool fa sa oto nekk nga dem taal dugal neema caabi sa neema ba taal dawal sa bopp ba yëbb sa kër ga da daanu nga des na sërif am de mais ku ko xam daanu nga yow nga indi oto hmm. taal sa kilim wàññeeku bàyyi sa oto foofu ak say dàll dox dem ñibbi ñu fekk la sa kër sa oto say dàll daanu ga nga doon daanu si yonent bi dëgg la loolu nag yàgg na boobu man xale bu ndaw la mas naa jóge Louga gàmm ñëw fekk moom ma doon tudd ma ñëw ma dama mujj sax tiit la ma tiit mooy ma fekk magam yàlla yàlla yokk leeram may may way yonent bi rek ñoom ñaan ñëpp ñu ngi sukk di jooy di yuuxu sërif ba ñu toogaloon muy sërif euh, daa moom tamit di jooy moom mel ni di neeyu moom it ma gis ku muy soppeeku ma man boolu ma si coow bi ma dem ba gisuma lu ma xam dama ni kat taj waaye jaar si ginnaaw ndànk dem ñibbi. boobu yonent bi la boobu ñëw ci ngénte. boobu waaw man xaw ma lu ñëw na am ñëwul man man daay ma doon man daa dong laa xamoon. yaayam laa tudda doom ji Aminata bintu Wahb bi yonent bi ñëwal boppam ñi am bâche ñëpp teg ko ba yàq sa loolu lañ doon ma jékki-jékki nag bàyyi way ya ndànk yar sa ginnaaw dem ñibbi ma yow ñee ñu nga doon way na nga jooy de man baa baax na man maa ngi tëdd nelaw damaa fanaan gàmmu sërif ma ànd ak sa soppe sëriñ Mamour Sy sama sëriñ sama xarit sa soppe tey tey moom dama dama dama bég aussi dama firi parce que damaa ñëw sama kër soppe ñëw ànd ak sama doom yaay ji di Mouhamadou Lamine nuyu ñi fi nekk ñëpp na góor a jigéen mag ak ndaw Euh, li nga ma tudd sax ne naa tudd yëkkati si yonent bi moo tax ma koy def ndax ndigal la si man ak imtisaalu laa yadur maa ngi nii sëtu rasulillahi bi toog di sërif maamina di sërif habdaati ak sërif yi nekk yëpp ak imaam yeeg ustaas yeeg ñëpp ñaan yàlla sërif yàlla nga gudd fan ñun boo ñu ñaanalee dañuy dal ñun bu buñ la ñaanalee mu dal la rek ci micro bi sax. mil bi daaratu jul juli ana ñi bëgg siiduna Muhammad wa madha nabiyillaahi fassil wa ajmali fa qul lilladi يولى بحبي تنفلي bu leen yàlla yeboo ba ngeen ti maami te mooy seyduna muhammad damaanul alayna madha afdal mursali fa madxu rasulillahi maa bëgg nabi ba bëgg ku bëgg sayduna muhammad fa madxu rasulillahi sërif koo bokkul ak moom maam yaa ko gën maam samaam mooy sayduna muhammad fa madxu rasulillahi mil awkadi fardi mooy sayduna muhammad rasulillahi tappal nañ ko garaat yeyoo na garaat ba xawaa ko la majjil lil waraa wa jalaalatin wa jaa bi ayatin maat kulla qaalatin fa man sakka fiihi fa wa ilfu dalaalatin muy laaj ndax afi lxaqu sakkun baada alfi dalalatin taqaddama sikruhu madaadaya yuqruhu yàlla ma ko rimbal te man yàlla ku ma rimbal tul jam-jami caaxaan bàyyi la fa yàlla ne maa ko bind mu supérieur gaa yi tëbëku te gaa yàlla ne bind naa aadama mu am ndey amul ndey amul baay ma nelawal aadama roj si faaru càmm bind sa xawaa mu am baay amul yaay ma bind Iisa am yaay Iisa amul baay ma bind mooy borom ba di dijj ak ndombay koo koy sa maam Seydina moo gën aadama moo gën xawaa moo gën Iisa déggal bu séeri sa wax na ko lam tëzal fi damairi kaw nu tuxtaaru lakkal ummahaatu wal abbaawu te kat moom kat maamada fatratun min russi ilaa basar xawma bi ka lambiyaahu tattabaa bi kal usuuru wa tasmaw bi ka aliyaahu baadaa aliyaahu waaye maamu kii bi mu bëggee wax li bu séeri wax benn bayt la jël jël misra ba wax sa soxlaam ne min xiiratil karami lil xiiratil karami abdoulaye xujur daa guddi say haasim abdul manaaf kilaab murata kaab luway fiir malik nadar kinaana xusayma mudrika ilias mudar nidar mat adnaan ñuy góor maami jigéen di fatima salma haatika hubbee fatima wasiya bintu zeybaan maawiya salma layla rabab sawda muhana ak jënd la góor am maam jigéen war naa am bàyyi ndaw maamu kii ne sa maam ndaw ya aaris subayru talatu muhawim diraar abou taalib abdul kaaba abbas ijlin xaydaax ñu ne ko waa xanaa war naa am bàjjan mu ne aha kay ku ci bokk ak bàyyam ndey xam naa ku bokk ak bàyyam bàyyi xam naa ku bokk ak xam naa kan kan la mu ne arwa bàjjan la su yoneen bayda bàjjan la su yoneen atika bàjjan la su yoneen shafiya bàjjen la su yoneen baratu bàjjen la su yoneen waaye nee na baratu moomu bartu bind abdu usa ko jur bartu bind abdu usa umay matoo ko jur umay matu xilaabatoo ko jur xilaabatu daabatoo ko jur daabatu lup naa ko jur ñeenti ñooñu arab lanu waaye du ñu xurees jir gunnaan tanim lanu bokk ñu ne Seydi Haaji Malick loolu leer na waaye fan la juddoo mu ni Makka ñu ne ko Makka ban quartier mu ni Ousfane la quartier bu naan Ousfane Maodo gën kër la mu ni kër gu naan kër Ibn Yusufa waa Maodo ban bis la mu ni bis bu naan altine ñu ni Maodo ban heure la mu ni bul xool sa montre montre amagul benn biddéew la biddéew benn tell fenk yonent bi juddu moo si Seydil Hadji Maalik ne juddu Muhammad ak fenk biddéew bi ixtarana lëkkaloo na ñoom ñaar ñu ni Maodo loolu leer na waaye bi mu juddoo lu xew mu ni moom rek laa gis muy juddu am lu ñëw ba tiim màkk naan yéen waa màkk am ngeen sens boo àkkatee xay boo ñemee mu saf suukar boo àkkatee niima boo ñemee mu saf suukar lu tax ki juddu moo bokkut ak daal judd ñu ne ko Maodo kan kan Maodo ku judd kan la mu ne ki judd ki nga xam ni jigéen judduwul ba mu juddoo jigéen judduwul góor rekk juddu ñu ne Seydi Hadji Malick ndax loolu rek xew mu ne am na sax ñaari téeméeri jigéen am naa benn firikat bu may dégg mu firi ne ne ne Mouhamed bi mu am bi mu juddoo am na ñaari téeméeri jigéen yu faatu ñu ne ko nu mu faatoo mu ne ndax ñoom kat dafa am koo xamante ni dañi jigéen judd li tax ñu faatu moom kat leneen ko yébbe mooy bëgg jigéen moo tax ñu faatu mu ne ko déedéet du loolu wa maa tadiqul la mm-hmm. وما تضيق من النسوان من حذف xaraf nasaaka minal ko xëñ laa taxin waa ji ne moo maata dee na ñu ko ko dee muy diixul waa naan diix lu ko mu ne mi ni nisuwaani ngir bëgg jigéen ma ne ko déedéet dan ne ñaari téeméeri jigéen ñoo ëmboon yàkkawle seen biir ngir dégg ne gisaane kat yi nee nañ at sàngam weer sàngam maamu serif dana judd ñu yàkkalu seen biir defe ñoo ko jur nag fa ëmb ba mooy leen dal amina ñu dee mais deewuñu sax deewu faw de déedéet dañoo dee deewu maanaa ndax jigéen bu demee ba buttitu njuru kaayam yàqu mënatul a jur dee na deewu maanaa loo dee googu la ñu dee mais deewuñu ñu nga suul leen ñu ne Seydi Hadji Malick loolu rekk xew mu ni déedéet sërif maa ngi koy maa ngi koy dagg foofu sax euh, ba beneen yoon waaye maa ngi lay seedeel ni la ñëwu ñëwuma sax jàng tey damaa ñëw bég bég goo xamante ni barki Serigne Babacar Sy ma yaakaar billaahi wallaahi taalaahi kontaan naa lool lool lool ba parce que man danga maa neex li tax neex man man xaw ma li xaw ma xaw ma man du si man na xam naa ni si yow la man bi ngay wax nii damay yëndu rek di ree li ma gën a neex nag tey gis naa ko fi dafa am sama gars yi maa bëgg ñëw ñu bind ñëw bind si parce que boo boo si jàpp duñu am jabar <laughs> di après dinaa la day tuur yu bëri Serif. waaw wasalaamaaleykum wa <laughs> ah, dañ sañut rek ne la waaye toj bi moo doy waar ah, ni nga ko décortiquer loolu moo yombul àndale ko ak woy yombul yombul. yombul nit mën na wëy rek dem waaye di di ko toj nag di ko décorté yombul nag ci biir wéy yombul yal na yàlla defal sutura nga kenn bëgguloon nga bàyyi nag moo tax ma ne lay faw nga yëkkati parce que tamit nit la mu mën soo ko ko iñaanee it yaay sonn rek waaye fekk moom mën na ko ba noppi waaw man bi may wax kenn joxuma dara waaye bi ngay wéy rek gaa yaa ngi jàllale ah, noonu la sa cër la yaa ko moom yaa ko moom sa cër la yal na sax dàkk nag yal na sax dàkk nga sut euh, sa mag jafan alxaaji Cheikh Samb te ëpp ko barke nag ndax xam naa ne moom yéene woon na la ko yal na nga ko sut bat fan te ëpp ko barke lu mu mas a am ci géewu yonent bi yal la nga la la ngay am yal moom yal nay asaka ah yal na ko yàlla defee noonu ah moom lu ne am na ko ci géewu yonent bi waaye la ngay am yal nay asaka moo ko yóbbu màkka it nag tabaarakallah kon alaaji maam moor jërëjëf mu ne kii nag moo ko yóbbu ci Cheikhuna Tidiane muy sëriñ Abdou Aziz kon ñun ñëpp ñu déglu suñu sëriñ Seydi Xaaji Maamoor eh, si di bu paree nag bañ julli shérif ñaanal ñu yàlla li mu wax waaw eh, sàmmkati mbott moo xam ba cay soox shérif yaa dugal sa bopp shérif <laughs> moo dugal boppam de bu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Eh, alxemes bu jot waaye mooy guddi àjjuma bu jot dana danaa gisanteeg moom moom mii sëtu yonent bi bu ko waxee am na lu tax mu wax ko du sëtu yonent yépp koy wax ah, waaw kon nag gis boobu nga ko gis ca nga bokk yow it <laughs> mooy li ma wax rek ah, loolu nga ko gis kon yow ca nga bokk waaw waaw waaw dëgg la waaye dara kenn mënu ko suul wallaay dëgg la ay dara karaara wallaay ay dara karaara dëgg la hmm? waaw bu may ma ko rek ay dara bu bu bu sëy di daaneele rek yow ñu waaw yow ñu bàyyi la nga dem waaw waaw dëgg la sarax ma rek bu sëy di daanee yow balaa ñuy julli rek yow nga dem incha allah su ko defee kook nga dendal imaam si imaam sëy kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku baax la ak yeneen ay ima yi fi def yépp bismillah Seydi Hadji Mamoun